vendredi 16 avril 2021 mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan à travers Equivox TV euh, nuyu nañ leen di am mbégte nag ak bànneex rek di jàkkaarloo ak in saa su nekk ci euh, seen journal de l'arène ma leen di euh, dalal jàmm Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay. ci da ngaa kontaan tey ndax da ngaa <laughs> ma a sañse. <laughs> Ah. <laughs> ah gënoo maa maa ngi gën a sañse non man def vax. Ah, vax bu nice nii. Mm. ah macha allah. maa ngi lay ziar waa fii de moom fii laa génn tey sama waaje ca Marsa Salem kon baax na Moussa Sène doomu Ngoy Aliou Sylla boobu doomu Ndeye Samba Karam mu maam Thierno borom daaw. Mhm. moom Moussa daal moom a génne fii tey Abdou Thiam Touba Sandaga ñëw ko nag. Mhm. moom waaw tey moom noonu la demee waaw. voilà nuyoo la téléspectateur a maa leen di nuyu ah, leen ñaanal jàmm di leen balu ak si àjjuma ji naan yàlla defal ñu jàmm. Mhm. barke yonent bi sallallahu alayhi euh, mbokk téléspectateur yi ñu dem seetaani revue des titres daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum vendredi 16 avril 2021 dañ ñëw ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu làmb nag tey xëtamu xëy fesal lenn la maanaam ka nga xam ne nii moom moo di Ama Baldé sëllu mu ndaw bu Pikine daal la ñu xëy wat wan tey muy daw ay daw yu méttee méttee métti ci biir làmb ji yëglikaay bi nag la mu gis daal ne na amaa day xanaa jafe-jafe yi nga xam ne nii moom loo dugal na ko Pikine xanaa kon moom moom mu war a ñëw daal lijjanti loolu réglé ko te itam yemuñu ci de ñoom waa Pikine ñooñu daa mel ni arène nationale ba donte ci seen gox la ne jege leen lool daa mel ni ay jafe-jafe lañ fay jële saa suñ fa duggee ndax ka nga xam ne moom moo di booy ñan ku ne xam na ne combat ak Lac de da ko faa ñàkk ñu ne leen ne waaye li ñàkk fa digganteem ak jantéer même Aliou Mané waaye yemu ci yëglikaay bi ne na ki nga xam ne ni moom moo di ëmma seen bërki démb moom mooy seen mag tamit daa ñàkk digganteem ak la de mel ni kon daal arène national daa mel ni ñàkk naa jig ña nga xam ne ni ñoom ñoo di mbëri Pikine rawatina ci wàllum grand combat xanaa kon Ama fi mu nekk nii daal mbir yooyu kon moom moo war a ñëw lijjanti ko fexe wa arène ba bopp ñàkk ji googa mu ñàkk liñ ci Ama taxawal ko waaye keneen koo xam ne maanaam bopp moomeel ak bokk moomeel bokk liy lif ca Pikine di ab maire ñu naan ko Ablaye Diop moom la muy tiit daal nee na infrastructure bu mel nii daal nee na loo ci mën a dégg daal nee na jàpp na moom daal nee na maanaam Ama Balde ndax làmb jooju wala boog arène ba est-ce que na ki nga xam ne ni moom moo di Ama Balde loom daal la mu gis mooy arène ba daal attanul Ama Baldé ak mbooloom ak ki yëngu-yëngoom Ablaye Diop di ab maire nekk ca Pikine moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu mel ni ki nag moom Ama Baldé moom mu ñuy wax am na keneen koo xam ne ni moom mooy chargé de communication bu la de Guiers numéro 2 ñu koy wax Azou Diop Azou daal xëy na tey wax la nga xam ne nii moom la moo ko sax maanaam daal seen diggante Gris Bordeaux la jàpp ne am lenn loo xam ne nii daal maanaam empêché na Lac de Guiers numéro 2 war daan Gris Bordeaux ne na gisu ko lu war a teex lu war a dee boog Gris Bordeaux la daan ko as jóg na ne moom gisu ko tey suba waxi noppi jàpp na ne tamit diggante Modou Lo ak Ama Baldé nee na ñoom samp nañ fa seenam ndënd asu jóobay wax de dana na ñoom ñaar moo xam Ama la wala Modou ku ci daan pare na ngir defante ak yow ba mu saf sax beneen combat boo xam ne nii moom am na ab date léegi leer na nañ muy diggante général bu Fass ak Coly Faye numéro bu Thiaroye yëglikaay bi xëy na ñu xam ne daal kon Sambaay Fall moom di Sam production combat jàpp nañ ko le 3 juillet daal la ñu yëglikaay bi di suñu làmb xëy tey wax nu lu mel ni ki noonu mel ni ki nag soo bëggee dégg-dégg daal ba tey ñoom mbër yooyu daal ak wàllum koor gi seen wàllum entraînement daal yëglikaay bi ñëw na tey ci ban plan wala yan yoon la ñu war a tëral ngir mën di entraîner yëglikaay bi xëy na nag dégg ci micro ka nga xam ne moom moo di Omar Diagne di OMS di entraîneur moom nag daal jàpp na ne daal def ci lu jëm ci contact moom daa jàpp ne ay risque yu rëy rëy rëy la moo tax daal mu jàpp ne kon loo ci mën a dégg moom des koy def waaye des koy def itam nañu xool nañ koy defe waaye contact ci moom joxe la nga am ci weeru koor bi ne na ku koy def bu keroogee moom OMS jàpp na ne ah yaa ngay xaru de te lu ne mën na la caa ña nga ne moom la ñu di yàqate arène nationale ba am na loo xam ne nan na leen caa fekk ndax nag moom acte de vandalisme booba daa mel ni ñépp a ca ànd ñaaw lu ko itam moo tax nag ña nga xam ne nii ñoom ñoo di wala boo waa seen ba daal génne leen seen ay yet fas yéene jëflanteeg ñooña ña nga xam ne nii nag ñoom ñoo jiite écrit ak école ya ñoom itam daal muy Malick ñi dana ñoom itam ñu ngay xaar maanaam gis yooyu nga xam ne war naa am su ko defee ñoom su keroogee dana ñu réagir loolu mooy wax ki nii moom moo di Malick Gningue yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw wax nu ko keneen koo xam ne ni daal mu ngi ci biir yëglikaay bi ca poussé muy Malick Niang Malick Niang moom ca micro Equivox TV la waxe sunu làmb xëy tey andil ko ca toussé Malick daal nee na ba ko kenn wax waxi Lac Rose ndax nee na xalaatu da moom tey suba waxi noppi ba ci res tamit nee na Lac Rose su ma ko daanee lan lay wane maanaam koo xam ne yow maanaam meloon na nga war a fi mu nekk nii nekkoo may bëre ak yow maa rek na loolu xalaatu ko tey suba waxi noppi nee daal dafa ñëwental lagros ndax nag jàpp na ne xajut ci kawam tey suba waxi noppi keneen koo xam ne ni moom koor googa mu nga ca moom Modou Lo yëg li baa xëy tey wax nu ko ba tey ci tuusi nee gis nañ ko nag Modou daal di diriger la nga xam ne nii moom moo di wàllum julli maanaam daal ci weeru koor gi yëglikaay ba moo xëy wax nu ko kam fi bëree loon nag muy Eumeu Sène yëglikaay bi di record moo xëy tey ñëw ci moom ak ay mbiram yoo xam ne ni fi mu nekk ni day jafe-jafe maanaam ñëw na ca boo xoolee maanaam ci ñoo xam ne ñoom la war a dajal ndax ña nga xam ne nii ñoom la génne fi mu nekk nii ca VIP ne dootul dajeeg ñoom daa bari moo tax yëglikaay bi nag ne ko kon de ëmma li fi des mu nekk nii mooy sa diggante ak Tapha Tine wala boog xale yoo xam ne ñu ngi ci làmb ji di màgg maanaam daal lii moo la dese comme VIP yu baree baree bari naroo daje ak ñoom rër ak moom pare na bay préparé wu fa nga xam ne ni moom moo di ca Dubaay di waajal combat MMA ba yëgli kay bi daal ne nañu Reug Reug mu nga ca Dubaay moo ko entraîneur di waajal boppam bu baax a baax keneen koo xam ne nii mu ngi pare di waajal boppam mooy Sa Thiès yëgli kay bi di record moo nu ko wax ci acte de l'arène ne nanu daal soo bëggee dégg daal moom fi mu nekk nii daal la muy pare daa mel jël avion naaw jël picc mi dem préparé ji diggante ba Moussa Ndoye am na ñoo xam ne nii moom ñu doon préparé pare na mu muy waa écrit Fass Ndakaaru yëg li kay bi di ko xëy na lu xamal daal ne na fi mu nekk ni daal pare nañu maanaam kayit ya sax xaaruñu ko administrativement maanaam la ñu fas yéene def daal altine jii di ñëw di le 19 avril daal la ñu fas yéene nag daal di commencé nag seeni entraînement ci école ba ñuy wax Sakura Badiane loolu la ñu yëg li kay bi xëy wax kon daal loolu la 19 lay am waaye tey moom ñu ngi ci le 16 avril ku ne xam na ne 2021 la ñu ne kon boog happy birthday to you la ñuy wax Gomis Ndiago Bamba di caméraman di cadreur nekk fii ci Equivox TV kon Gomis dundal la baree baree bari wéral amal xaalis yàlla defal la fan mu gudd ak wér yaram waaye tamit ñu ngi lay ñaanal nag yàlla may la soxna ndax loo ci dégg yàq jàpp leen ak ñamay bañ a tudd ne góor day teel a am soxna loolu yàqul dara waaye jigéen itam teel a dugg néegu sëy dana ko aar loolu itam damay bañ a tudd tur rek am ñuy gis seen bopp xam naa ne xeer yi dal na de gis naa ci sama bopp. ñi amagul soxna ak ñi amagul borom kër mais ba tey amul problème dañ koy gérer. <laughs> waaw non <laughs> li ma wax de est-ce que aay na. amul problème dañ koy gérer. li ma wax aay gérer yal ah. <laughs> na leen yàlla may rek. amiin loolu de laa leen di ñaanal. waaw li may ñaanal célibataire yi am xam nga marié wu mu góor muy góor muy jigéen. Hmm. parce que xam nga. moo gën wóor daal moo sécurité. baax na ba tey baax na. voilà ñu daal di ñëw nag ci journal suñu làmb Babacar. te ci xëtam bu njëkk lañ fa gis rek moo di Eumeu booy Niang 2 ak euh, yeneen i euh, mbër yoo xam ne dañoo nekk ca Pikine ñoom dañoo mm. gis ne daal bañati jaarin bi ba léegi presque rek dañuy échoué ñu gis ne nag ki nga xam ne moo di Ama Baldé moo war a ñëw briser malédiction boobu contre Modou Lo. waaw loolu daal li mu si dégg mooy boo xoolee arène nationale ba ñu ubbee ba tey ça veut dire ko kon mbëru Pikine yi fa bëri grand combat yu ci bëri dañ nga ñàkk. Mm-hmm. parce que Boy Niang ñàkk na fa. Eumeu Sène bërki démb ñàkk na fa ah, ki nga xam ne moom mooy Jet ñàkk na fa ak yeneen i mbër yoo xam ne ñàkk nañ fa ay grand combat ah, te arène ba moo ngi ci seen biir maanaam loolu moo tax xëy na yëglekaay bi jàppee ko ñàkk sens xëy na Ama nag moom moo war a ñëw lijjanti loolu ah loolu nag di lu diis mais loolu xam nga euh, affaire bi moom sport la mhm. parce que tey sport moo tëdd noonu nekkul ne arène bi daa war a ne ci biir Pikine ñoom dañoo war a gagné noonu parce que li tax mooy adversaire yi ñuy dajeel mhm. ñoom suñu ñëw itam maanaam ñoom lijjantiwuñu arène ba ndax Pikine la ne mhm. wala Guédiawaye wala parcelle wala Dakar wala fii wala faa déedéet dañuy ñëw bëri si ak yow daan parce que Eumeu Sène bi muy gagné Gris Bordeaux seen dernier combat stade Demba Diop la woon. Mhm. te Demba Diop Fass ak Fass la gën a jegeñ. ak Grand Dakar rek ñaar taleeg yooyu. Mhm. moom mu jógee ba Pikine. Mhm. loolu nag moo lay wan ne kon daal a ah, Ama. kon moom comme moom moom la yëglikaay bi xalaat de moom mu war a régler loolu. ñu yónni yàgg ba xool rek fi wane du mu jékki bëtam. dëgg la voilà waaye ba tey rek ki nga xam ne moo di Ablaye Diop le maire. daal dina ci àddu rek nee na xam leen ne foofu nga xam n moo di arène boobu euh, combat Ama ak Modou Lo attanu ko. waaw moom de loolu la wax waaye arène bi moom li may wax li may jëkk a xam ne daal mooy làmba tax ñu tabax ko mhm. te itam place ya bëri na ndax moo ëpp Demba Diop ay place yaa ngi dégg mhm. te tey bu Demba Diop doon dox bu ñu tëgg làmb moo doog ama des na ko fa yóbbu mhm. kon arène nationale moom maanaam damay jàpp nag lu mën a xew fa la ñu war a yóbbu Modou ak mhm. Ama waaye ndax fa la ko war a yóbbu est-ce que attan na ko wala attanu ko loolu beneen question loolu tamit jar na bàyyi xel loolu mu wax noonu mhm. ndax man mi maa ngi ciy bàyyi xel mhm. man maa ngi xool mbooloo mi war a topp Ama mbooloo mi war a topp Modou Lo ndax est-ce que arène nationale bu bés boobaa dinañ fa mën a dugg ndax dinañ fa xaj li ci des mooy ma di ci bàyyilowaat ñu xel surtout autorités yi xam nga kër a gis nañu ay saisi ñuy damm ak yooyu mais beneen seetlu mooy li nga xam ne nii moom mooy barrière bi nga xam ne moom moo dox ci diggante géew bi tribune bi. Mhm. barrière boobu. Mhm. maanaam dafa gàtt da ngay gis des fois booy dañuy tëb tëbe ci kaw. supporters yi wàcc ci suuf. Mhm. yaa ngi dégg te Ama Baldé ak Modou Lo nekk na benn genre komba boo xam ne ni li ci aju ci ay pression ak ay défis yu ñu war a relever. ak jàpp ak enjeu bi si ne defe naa combat la boo xam ne daal bu ñu war a bàyyi xel la. ci bés boobu ci biir arène nationale. signature bi ni mu meloon. voilà face à face rek boo xam ne sax kiiwul sam waaye mu mel noonu keroog mel ni dañoo woote ci bëre kon ñooñu bés bu ñu nee kaay leen bëree loolu kon. ah li maire bi wax nañ ci bàyyi xel néew ma nag arène bi attanu ko waaye daal nañu xool na autorité yi teel a jóg ak mhm. promoteur bi ko tëgg ñu mhm. xool yan matukaay la ñuy jël mhm. ngir bu ñu ci yeggee combat bi buñ koy def arène nationale tamit ñu def ko ci anam yoo xam ne dinañ ko def ci bismillah rahmaani rahim mu jeex ci alhamdulilah rabbil alamin parce que tamit ñaari mbër lañ yoo xam ne liggéey nañu tey lu tax seen combat toll foofu. Mm-hmm. am na solo ki nga xam ne moo di Azou Diop nekk na chargé de com puncheur du wàllo bi nee na daal moom gisul lenn loo xam ne euh, war naa tere Lac de euh, battre ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux waaye ba tey rek euh, ci diggante Ama ak Modou ku ci daan rek moom Lac de Guiers pare na pour dékku ko. waaw fi mu jëkkee muy diggante seen diggante giri moom waxoon nañ ci démb defe naa ne mooy loo xam ne yàgg nañ koy wax lag ak giri dañoo war a bëree mm-hmm. yaa ngi dégg mas nañ fi gis sax benn jamono ca démba jóob lag mm-hmm. ñëw taalal fi giri ay loxo boobu ba tey seen combat amagul ah comme li ma la waxoon démb nag nga di ko rek bis bu amee combat jànq lay doon mm-hmm. te xëy na du ñàkk amateur yu ko bëgg lay tere nag ñu baatar ko loola moom moom asu jóob mi ko wax amut luy tee ñu gagné giri loolu moom ñoom la mais loolu moom duma ci dugg parce que ñoom ñooy préparé seen mbër ñoom ñoo xam la tax ñu war a jàpp ne amut lu leen di teree daan giri boobu bu ñuy bëri ak ñoom seen diggante ak ak Modou tamit ba foofu tamit am na lu fa am ndax ku ne xam ne ne Lac ak Modou bëri nañ deux fois match si bi Modou gagné ko par ay décision mm-hmm. arbitrale mm-hmm. bi ci des mooy seen diggante ak Ama Baldé li yàgg na fi dinañ bëri du ñu bëri bañ dem ba da ngay dégg ñu ne bii temps du ñu bëri mm-hmm. ñu daan beneen temps ñu ne dañuy bëri tey nag gisaat nañ sarse da ko moom génn ne samp nañ fa seen dënd kon ça veut dire que kon ñoom bàyyeetuñ fi ama ah loolu nag moom mi ko wax tamit ñoom ñooy xool rek ndax ñoom seen diggante ak ama ndax seen diggante ak Modou moom jërul wax ndax fa da xam ne la ñuy bëri ndax bëri waaye seen diggante ak fa la mbir mi nekk mhm. waaw am na solo foofu daal fa la mbiri coow li ne ki nga xam ne moo di Bombardier moom nag il promet l'enfer à Balla Gaye 2 nee na du ko may dara daal combat bu neex a neex la dara doon te bu saf sàpp bu jàppee Balla mooy wax ji jeex na. waaw loolu la bëgg de loolu la wax itam moom <laughs> Bombardier nit ki nag sañ ngaa wax li nga bëgg ak la nga bëgg a def. Mhm. waaye ndax da nga ko mën a def. tamit fa la mbir ma ne ndax digganteem ak Balla xam naa ne ñaan ak mayante fooguma mu am fa ci ñoom ñaar parce que li tax mooy Balla ah, dafa am lu ko Bombardier defoon mhm. Balla bi mu nekkee roi des arènes bu koy perte Bombardier ko ko xañ mhm. jël ko dégg roi des arènes deux fois Bombardier moomu itam tey dafa ñàkk combat maanaam roi des arènes boobu da koo ñàkk ba tey gisaatuñ ko mu wàcc léegi nag wàccaatam digganteem ak Balla Gaye 2 la war a doon muy wàccaat boo xam ne bëgg na ñëw nekkaat place am te itam xelam mii tey boo ko laajoon li ci nekkaat bëgg na dégg roi des arènes pour troisième fois mu nekk nii jàpp na ne maanaam fi mu jëm ci kanam maanaam da ko bëgg jël à main ni mu ko waxee maanaam wane ci lu leer nañ mhm. kon defe naa ne daal ñoom ñaar li may wax rek ku bugg fu mu fanaan la ku bëgg ku ko wér mhm. te jël buntu bi doon na sa boole déedéet waaw euh, ba tey rek ci entraînement yi ci biir weeru koor bi quel plan de travail pour les lutteurs ñi nga xam ne dañuy dañuy maanaam ñuy woor ki nga xam ne moo di Omez daal dina ci àddu nee li nga xam ne moo di contact yi dina xaw a metti te dafa risqué. waaw loolu moom wax na dëgg parce que tamit xam nga boo nekkee ci weeru koor li ngay soxla ci ndox ci mhm. naan. sans compter li nga war a lekk te lekk bi sax xay na euh, du ki mais naan bi mhm. sax dafay gën a graaw te yooyu yëpp boo demee am looy perte ci énergie kon foofu defe naa itam la nga doon def avant ngay woor ci wàllum entraînement ak i contact yooyu boo ko jéemee def ci weeru koor man nam nga ci ko def de mais li Omes Diagne wax am na mën nga nekk ay risques yoo xam ne mën na la jural leneen mhm. loolu tamit defe naa ne jéem a ut ay plan de travail yoo xam ne na loolu mu teg la ci aw yoon ba nga xam naka ngay gérer sa euh, mhm. a ne mhm. leer na li après mën na la jural la ñaawteef ya nga xam ne fële ca arène nationale euh, ñi nga xam ne nag ñoo di président mbër nga xam ne dañ leen sanctionné euh, waaw école ya nga xam ne ñoom ñoom la mbër ya ne mhm. maanaam ak écrit ya waaw dañ leen di convaincre parce que ñoom ñoom ñoo yore école bi ñoom ñoo yore écrit yi mhm. yaa ngi dégg mhm. comme ñoo leen boot nag faw ñu am faw ñu convoqué leen waxtaan ak ñoom tamit parce que comme sanction jóg na mhm. te itam sanction yi bu jógee nag ah dafay laaj ñoom ñooñu nga xam ne ñoom ñuy def xale yi mhm. ñu wala ñu ñëw ñu wax ak ñoom mhm. am na solo ki nga xam ne moo di Coly Faye 2 ak général Sambay Fall moom il retient la 3 juillet Sambay Fall mooy Sam production ma koy nuyu doomu Thiaroye Séri Khady Ndoye yaa ah, maa ngi lay béggee le 3 juillet la tëgg boobu combat wala ci la am date bi kon léegi leer na ñu ñaan yàlla yegg ci jàmm muy combat boo xam ne combat bu nar a metti la ndax général bu Fass ku ne xam na ne xale la boo xam ne waa Fass am nañ si moom yaakaar kuli tamit di doomi caaro juwaa caaro am ci moom yaakaar lool ñuy ñaari mbër yoo xam ne ay boroomi fit lañu sàmbay tëgg na ko mbaa mu neex a neex ay boroomi fit la dajale na solo ki nga ne nag moo di euh, Eumeu Sène liñ euh, seetlu rek record moo ko bind sax moom mm-hmm. liñ seetlu rek moo na maanaam ñi nga xam ne ñoo di euh, VIP yi dañ leen dañ ko exclure daal ci chemin maanaam VIP yi fi nekk yépp dafa mel ni daan nañ ko léegi ki ko dese daal moo di Tapha Tine ak yenn ci mbër mbër yi nga xam ne ñoom euh, jot nañoo jóg ñoom itam. pas VIP yëpp daan quoi maanaam ça dire que li mu ci ñi mu ci dul bëreetal si maanaam ñi nga xam ne dañ jàpp ne dootul bëreek ñoom ñoo bëri. Hmm. ndax foofu la yëgli kay waxee mais bëri na moom ñu mu ci daan. Hmm, waaw c'est vrai VIP la daan na ko ñaari hmm, yoon. mais revanche bu amee tamit. voilà day fayu la ci yawante. daan na Bombardier daan na yaa ngi dégg kon defe naa ne daan na tamit Lac de Guiers 2 mhm. kon yaakaar naa VIP yi fi ne mhm. a ñi mu ci daanul bëri daan na Lac de Guiers 2 mais Lac de Guiers 2 tamit amaat na ndam ci waaw si kaw par ci ay victoire ci ci ci ci ci avertissement la ko mhm. amee quoi mais moom ci bëri la daanee Lac voilà kon yëglikaay bi fi muy waxee mooy xëy na bu jàppante ne bu gisee ne Eumeu seen du bëri teg Balla Gaye comme ni mu waxoon. Mhm. du bëreeg la nee na dootul bëreeg Lac de Guiers mhm. ngi dégg bëri na ay adversaires yoo xam ne du bëri ak ñoom sans compter mhm. ak yeneen mbër ne du bëri ak ñoom ak Gris Bordeaux. loolu lépp soo ko boole moo tax yëglikaay bi jàpp ne kon moom ay sansam bareetul ci VIP yi. kon léegi li ko dese mooy tafaati na fi des ak xale yoo xam ne jàpp nañ ni ñu ngi jóg. effectivement noonu la demee parce que ñi génn ci ay adversaires actuellement wax dëgg yàlla ci ni ñu ko waxee dafa bëri waaye euh, ne lépp mën a mën a nekk ah du biir de xëy tout est possible. Mhm, en loo ci mën a dégg daal mbër la te jàmbaar la. man woon na ma koo sopp ndax yar bi mu am. ah, ah. non macha allah ku neex deret la ah. macha allah li ngay gis si moom foo ko gis mooy bëñ bi ngay ñëkk a gis. Mhm. muy mbër moo xam ne tamit royukaay la parce que li tax ñu di ko wax mooy yàgg na ci làmba ah. mhm. yàgg na si làmb yaakaar naa ne tey bu ñuy wax ay Balla Gaye ay Modou ay Tafatine ay Lac Guerre bi ëmma di bëri ñoo ñëwaguñ ci làmb dëgg la ëmma bi muy dem équipe nationale nee na boobu sax ay atam dañ ko ko yokkal pour defalal ko kayit pour mu mën a dem équipe nationale kon boobu xale la mm-hmm. depuis les années 96 wala jàpp 97 ñëw mu ngi bëree ba tey nga am hygiène de vie bi mu am di bëree ba tey di ñëw si làmb defe naa kon kooku royukaay la ci li nga xam ne nii moom na mooy sport bi muy def mhm. muy koo xam ne vraiment ñu ngi koy nuyu bu baax a baax sant bi rek moo ko yàqu quoi mm, ngom ngom <laughs> ah waa kon ngom la sant ngom ah, mm, ko xam ngom bi rek laa ko wax na ko changé quoi dañoo bëgg lekk surtout moom ngom waaw <laughs> <laughs> voilà xibaar jaar fa dar képp waaye Equivox tamit ay xibaar dafee am ndaxte nag tey la anniversaire ki nga xam ne moo di euh, Gomis Ndiago Bamba xam nga nekk Ndiago ba pare Bamba wala ci Bamba ji. Euh, dafa dafa xaw kii waaw waaw Bamba de xam nga. Bamba moom daal mi ngi noonu Bamba. waaw loolu moom li ñu koy ñaanal mooy mu dund jàmm rek moom. Gomis yàlla defal ko fan bu gudd. Mm-hmm. defal ko wér gu yaram mhm. defal ko saadatu daara ni comme ni ñu koy mhm. waxee amiin defal ko bépp doomu aadama parce que anniversaire moom ah dafa neex trop yàlla na yàlla def nag at bu ñëw rek bi mhm. boo koy féete loolu lañ koy ñaanal bala at bi di ñëw mu am jabar <laughs> waaw yàlla ko yàlla may soxna su baax loolu lañ parce que taalibi ah, a denc soxna li war a am ab sax daa rawatina boo nekkee njaago bamba <laughs> voilà kon ñu koy nuyu di ci profité di nuyu njaago yépp képp kuy njaago Sénégal rek maa ngi lay bëgg di lay siyaar ñi sant Gomis ak Pereira Mm-hmm. yeneen ña ca yama xam raisonné kullu kuy njaago <laughs> maa ngi lay béggee mais di nuyu tamit sénégalais yëpp parce que sénégal comme li ñuy wax rek mm-hmm. benn bopp kenn mënu koo xar mais ki nga xam ne nii daal mooy Abdou Thiam mm-hmm. bi faw mu joxe numéro am bala maa tàggoo a ñàkk ku la nekkal ci naaj wi nga nekkal ko ci kër gi du mën a ñàkk Abdou Thiam ca Touba Sandaga moo jaar fii tey gis nga li ma ñawal solo couleur rafet ba ah, pare ni mu ko ñawee macha allah simplicité nice kon ku bëgg numéro rek wooteel 77 ngay 36. 77 618 88 36. am na solo Abdou Thiam a nduy ëmma seen nekk Touba Sandaga. maa ngi koy mhm. béggee bu baax a baax moo fi jaar mais di nuyu Moussa borom marché Asalem. moom moo joxe tisi bi di la béggee di nuyu sama soppe yépp waaye tamit ah. ami hmm. nga jégal ma ne des fois du mën a ñàkk faw faw muy gudd ah. faw ma jox gaa yi suba rendez-vous fële le euh, ca commune Ndondol. Ah, ak maître Pape Sène. mooy stade municipal stade municipal bi nga xam ne mhm. suba lañu war a nag ah, dugg ci liggéey bi ñu war a def cérémonie de lancement bi mhm. suba ca mairie ca commune Ndondol. Mhm. fa nga xam ne ni moom mooy suñu dëkk. bu ñu ca jógee tamit. daal di def conférence de presse la maire bi wax loolu lépp nar na ko def ñu koy ñaanal rek comme ni ñu ko waxee sumb yooyu muy sumb yëpp ci commune bi yàlla na ko yàlla def mu réussiral ko a def mhm. ëllëg dafay jóge keneen ñëw mhm. mhm. ko yàlla na ko yàlla di dimbali mu di koy tudd parce suma xarit la suma maire la suma mag la mais tamit maire Lat Menge. docteur Macoumba Diouf. moom itam sama mag la biir Babacar maa ngi koy bëgg di nuyu soxnaam Louis Senghor. am na solo voilà mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di jaajëfal fii la ñuy daal di yem ak yéen tey nag seen journal de l'arène di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro jërë ngeen jëf.